day wax ne takk ab sëy am na ñeenti ponk yoo xam ne ñooy tax takk ga sotti da cee boole nag can gi waaye dañ daa wax naa mënees naa maye te duñu tudd can ndax li ñuy wax ni kaaxut tafu yëbb day doon sëy boo xam ne dañuy maye noonu te kenn du wax alal li sëy moom da ko cee boole moo tax mu doon ñeent sëy faaw rek kilifa mënu caa ñàkk jigéen ji day am kilifa goo xam ne moo koy maye ndax jigéen ji mënta maye boppam faaw rek mu am kilifa goo xam ne moo koy maye ka war a nekk kilifa nag day mel ni mu wax jamono yi amee teqale gor ak jaam kilifa gi sañ a maye jigéen faaw gor lay doon waaye jaam moom du nekk mukk kilifa faaw kilifa gi day nekk jullit ndegam kañ yi maye muy jigéen ji jullit la ka koy maye faaw day nekk jullit ba tey nag bu fekkoon ne kañ yi maye day yéefar ki koy maye moom du mën a nekk jullit mel ne ku amoon doom bu jigéen mu di bi yéefar moom bàyyi bi nag muy ab jullit du tax mu sañ koo maye ba tey kilifa gi faaw day kàllafe bu dee gone mbaa mu di dof du mën a maye te fekk nag amul lu koy tee mën a maye soxna soxna say amul luy tee ñu maye ko ni ki kenn ci ñoom ñaar toll ci armal aj wala xumrata yooyu koo gut kilifa gi war a maye mbaa jigéen jëm war a maye bu ca kenn tolloo ci armal aj mbaa xumrata noppeegul ca loolee mu armal kilifa gi bu dee mooma du sañ a maye jigéen ja it yooyu jamono kenn du ko sañ a maye sart yi ñuy sart ci kilifa gi war a maye da ca am sart yoo xam ne moom mënuñoo ñàkk bu ñu xëttee rek du matati kilifa maye ga du baax mën na caa njëkk wax nag mu doon góor ndax bi mu nee xorrun xam nañ ne bu dee ci arab xorrun ji góor la du jigéen waaye nag nañ leeral rek ne kay maye soxna faw góor lay doon jigéen moom du mën a maye boppam du mën a maye keneen faw it na nekk ku kàllafe nekk jullit te bañ am benn gàllankoor ni ki armal aj wala humra rachid ji mu wax nag dañ ci jublu ku rafetuk soppandiku ci alalam nga xam ne bu amee alal du ko noose ndax li wax asafihu ñu koy firee ci wolof aji desee di jubluwuñ ca ku dof wala ku manqué am xel maanaam koo xam ne rek du yore alal noose ko mu daal di yàqu doon ci sax lu dagan la koy jëfandikoo waaye da ko ci yàq rek ndax topp bakkanam kooku mooy asafiihu ku mel noonu ci yoon dañ koy boole koo xam ne moo ko yoral alalam di ko ko topp tool ba tey nag bu àggee ci am kum bëgg a maye nit ki doomam bu jigéen na ca diisoo kilifaam googu nga xam ne moo ko yoral alalam bu ko kooku ne mayeel mu door a maye teew nag dañuy jàpp ne kilifa ga nekk ku maandu nekk itam rachid ji mu wax sart yu gën a baax rek la waaye buñ ci amut it du ko tee baax mel ni kii nga xam ne yàqkatu alal la bu jekki woon jekki maye doomam disoowu ca kilifaam waaye gis na ne lim def moom lu jub la lu aw yoon la kilifaam du ci sañ a wax dara da koy bàyyi noonu rek ba tey ka maye soxna bu dee ku maanduwut it waaye ka maye sañ na koo maye teewul gisu ci sikk da koy bàyyi noonu rek nga xam ne kon alxadaalatu maandu ak arroshidu rafetuk soppandiku ci alal dañ koy limaale ci sart kilifa waaye sart yi tax kilifa ga gën a mat la de bu ci ñàkkee itam du tee kilifa ga mat jigéen bu amee kum yilif niki kuñ ko dénkoon mu yoree ko ba mat a sëy wala jamono yi jaam amee moom jigéen ji mu amee jaam bu jigéen wala am koo xam ne moo ko goreeloon moom kiliftéefam yooyu yëpp bu fekkoon ne moom jigéen ji góor la mooy maye waaye ndegam jigéen la nag du mën a maye boppam du mën a maye kenn ci ñooñu lim njëkk a wax nag mooy jigéen ji bu fekkee dafa yilif gone gu góor ñu koy may soxna moom jigéen ji mën naa teewal gone gu góor ga nangul ko soxna sañ koy may nga xam ne ku ñu may soxna moom ka mu yebal mën naa doon jigéen mën naa doon jaam du ca dara duñ ca sart muy gor wala muy góor waaye nag kay maye soxna ci boppam moom faw tey doon góor te nekk gor bu fekkee ne jigéen ji doon gam doon jigéen rek moo tax ñu ne ko mën laa maye kooka niki moom dañ koo dénkoon xale bu jigéen mu yore ko ba mat sëy am ku koy bëgg ba may rek des ca wala jamono yi jaam amee mu am jaam bu jigéen moom ko moom jigéen ji wala am kum goreeloon moom kilifteef ga yooyu yëpp dañ ko waxe woon léegi du ci saña maye kenn moom ci boppam waaye nag day woo góor goo xam ne matale na sarti kilifa mu wax ko ne ko mayeel ma waaye moom ci boppam moom du sañ a maye mukk mukk moom ci boppam bu fekkee ne moo maye faaw ñu dindi may ga doonte sax jëkkër ji wéet na kookee ñu ko mayit mbaa dem naa dem ba jigéen ji am fa ay doomi doomit ndegam jigéen a ko maye woon rek faaw yoon tas ko day wax nag kilifa yi nga xam ne ñoo war a maye soxna ni ñu tegaloo ci yoon ka ci jëkk mooy doom bu góor jigéen ji nga xam ne moom lañ bëgg a maye su fekkee doom bu góor a ma nga fa te mu kàllaf la mat kilifa doom ju góor jooju moo ëpp sañ-sañ ci maye yaayam bu fa doom ju góor nekkut ñu seet sët bu góor bu bàyyi ko ci doom ju góor su fekkee jigéen ji ñi maye ab sëtam bu góor a nga fa boo xam ne doom bu góor a ko juróon te it mat na kilifa moom sët boobu kon ma war a maye maamum ju jigéenam jooju su jàllee nag bàyyi door caa topp nga xam ne doom bu góor day jàll sët bu góor jàll bàyyi door caa topp xam ne jigéen ji ñi maye bu fekkoon ne baayam a nga fa doom ju góor ju mat kilifaa nga fa doom ju góor ja moo ëpp sañ-sañ ci maye yaayam waaye nag su bàyyee bàyyi bi yaayam muy maamam ju góor jooju mu maye yaayam itam daañu ko leeral ne loola baax na soo weesoo bàyyi nga teg ci mbokk mu góor maanaam mbokk mu góor mi nga xam ne moog jigéen ji ñi maye ñoo bokk ndey ak bàyyi mooy jiitu bu fa amut ñu teg ca mbokk mu góor ma nga xam ne moo bokk ak moom bàyyi rekk waaye nag mbokk mu góor moo xam ne yaay dong la bokk ak ki ñuy maye bokkul ci kilifa yi jàppal ne wala fi ñoo fonk rek doomi ndey ak lu mel ne nijaay waaye ñoo ñaar mi doomi ndey ak nijaay amu ci kenn koo xam ne sañ naa maye jigéen ja yaari mbokk yu góor yi nga weesu mooy ka bokk moom ndey ak baay ak ka bokk ak moom baay bu ñu fa nekkut seeni doom ñooy sës dañuy jëkke ki nga xam ne baayam ak jigéen ji ñoo bokkoon ndey ak baay door caa teg ka nga xam ne baayam ak jigéen ji baay rekk lañ bokkoon door a jàll nag ci maam mu góor suñ tollu maam mu góor mbokk day jeex dool mbokk jeex maam mu góor door a sañ a maye door caa sës daal bu ko defee nag su maam mu góor amut nga teg ca doomi maam mu góor doomi maam mu góor nag moom la ñu tuddee baay tax ñu koy wax baay bu ndaw gannaaw maam mu góor baay bu ndaw ba nga xam ne moog baayam ñoo bokkoon ndey ak baay moo ci sës bu jàllee nag baay bu ndaw ba nga xam ne moog baayam ñoo bokkoon benn baay rek ba tey foofu bul ci boole baay bu ndaw boo xam ne moog baayam yaay rek lañ bokkoon kooku génn na su baayu ndaw yi jeexee nga indi seeni doom ñi nga waxan léegi rek nga indiwaat seeni doom dangaa tuddoon baay bu ndaw boo xam ne moog baayam ñoo bokkoon ndey ak baay ak baay bu ndaw boo xam ne moog baayam ñoo bokkoon baay te ngay indi nag seeni doom tayit tegalee ko noonu nga xam ne doomi baay ji nga xam ne seen ñaari baay yi ñoo bokkoon ndey ak baay mooy jiitu ñu door caa teg doomi baay ji nga xam ne seen ñaari baay yi ñoo bokkoon benn baay nga xam ne kon boo ñëwee ci mbokk yi ak ci doomi mbokk yi ak ci baayu ndaw yi ak ci doomi baayu ndaw yi ka féete ci yaari wàll yépp muy ndey ak baay moom la ñuy jiital mujj ka féete ca wàllu baay dong ka féete ci wàllu ndey dong nag nga génne ko saa yu nekk moom xamal ne bokkut bokkul ci kilifa yi bu fekkee toppani nag askan dañoo ga kenn nekku fa ndax dem nañ ba ca ne mujjoon muy doomi bàyyi ndaw ya te kenn kenn nekku fa kon geño jeex na dañuy seet nag bu dee kon ku ñu moomoon ba goreel ko ka ko goreeloon moo am sañ-sañu maye bu fa nekkut keneen ca ñooñee nga xam ne ñoo leen daan moom démb naka jëkk ba goreeloon leen rek ku fa gën a jege na maye dafa mel ne kooku mën nga koo bañ a wàññiwaale ndax léegi amatul teqale gor ak jaam mën nga rek ne su fekkee ne geño ga geño bàyyi ga kenn kenn nekku fu ko war a maye nañ seet ka nga xam ne moo yaroon jigéen ji mu nekk fa moom lu mat fukki at mbaa mopp ko kon na ko kooka maye ba weesoo geño ga kenn nekku fa amutoon kenn ku yoroon jigéen ji di ko yar ba mu yàgg fa mu fukki at mbaalu ko ëpp yooyu ñëpp kenn nekku fa waaye am na àttikatu jullit kon nañ dem ca àttikatu jullit ba moom mu maye ko bu dee jamono jii nga xam ne mën naa am àttikatu jullit du fa nekk nañ dem ca kilifa jullit ña nekk foofa mu maye ko bu fekkee ñi nga weesu ñëpp kenn nekku fa kon jigéen ji na dem ci góor goo xam ne doyloo na ko ñu bokk nekk ci lislaam xam-xamam akuk maandoom yépp doy ko mu féetale ko boppam kooka maye ko su fekkee ne jigéen ja ñi maye dafa am ay kilifay kilifa nga xam ne kilifa yi mën nañoo limu ndax buñ ne doom ju góor kilifa la ci maye yaayam jigéen mën naa am ab lim ci ay doom yu góor bu ñu nee bàyyi ndaw yi mbaa doom yu bàyyi ndaw yi mbaa sax li gën a jege càmmiñ loo bokkal ndey ak bàyyi wala bàyyi dong bu ñu nekku ci nekk kilifa la ñoo ñëpp mën nañoo doon ab limub lim bu baree bari ñoo ñeen buñ xëccoo ci kenn ku ne ne man maay maye jigéen ji wala sax juboo nañ ci kam ak ci ñoom na maye waaye dañoo juumoo ci kan lañ koy may dafa am ay nit nit ñu ñëw ku ne bëgg ñu may ko ñoom ñu war a may nag ñu juumoo ci ne diw lañ koy may ñeene déedéet diw lañ koy may yooyu yëpp ndegam àttekat jullit am na dañu dem ca àttekat jullit ba mu ràññeel ne nañ def nàngam fekk nañ ñu xëccoo ku ne ne may maye na seet kam defe ni moo gën a yell ci maye ndax ak maanduteem ak aw meloom mu ne ko yow mayeel bi ngi xëccoo ci ñi koy bëgg si diw lañ ko cay may ñooñee di bëgg si jigéen ja ku ci gën a yell mu ne may leen ko kii bu dee jamono yi nga xam ne àttekat jullit mën na faa bañ a nekk nag saye ba ñu dem ci kilifa diine bi nga xam ne moo nekk foofu diisoo ci ak moom mu teg leen ci ci aw yoon kilifa yi nga xam ne sañ nañoo force jigéen ja may ko jëkkër te du sañ a bañ ñett lañu baay moo ci jëkk baay doom ja nga xamee ne xiig la maanaam ma ngaa ko ndawam ba tey ak ndawam dañëwut ci genn wet donte sax yàgg na fa lool ba am juróom fukki at du tee moom baay bi sañ na koo forcé daal di koy may jëkkër te du sañ a bañ bu fekkee na it jigéen ji jeeg la ak ndawam dañ na waaye la ko dindi accident rek la nit ki dafa wadd rek sote ak ndawam dañ wala bant moo ko lonk mbaa leneen lonk ko rek ndaw ga dañ wala sax mu njaaloo ba ndaw ga dañ loolu lépp ba tey sax bu fekkoon ne la dindi ndaw ga ab sëy bu wér la waaye dafa tàggoog jëkkër ja mbaa jëkkër ja faatu mu dellu si te ba tey teewul rek moom ndaw la maanaam ba tey rek ndaw la kàllafeegut yooyu yëpp bàyyam sañ na koo forcé may ko jëkkër te du sañ a bañ teqale bi am foofu mooy jigéen ji nga xamee ne ak ndawam dañ na waaye ci njaaloo rek la dañee wala accident rek la bàyyam sañ na koo forcé saa yu nekk jigéen ji nga xam ne nag ak ndawam dañ na te it dafa sëyi woon sëy bu wër ci yoon lay tax bàyyam sañ koo forcé mooy jëkkër ja fase ko mbaa jëkkër ja faatu mu dellu si te fekk nag ba tey kàllafeegut foofu la ko bàyyam di sañ a forcé waaye bu fekkee ne jigéen ji xas ne sëy sëy boo xam ne wër na bam tàggoog jëkkër ja it mbaa jëkkër ja faatu it fekk na mu far kàllafe kooku bàyyam du ko sañ a forcé faaw bala koo may kenn day waxtaan ak moom ba mu juboo ci mu nangu ne ko waaw nangu naa nga may ma kooku kon mën ngaa takk foofu ne soo amee doom bu jigéen boo ko bëggee wutal jëkkër te fekk moom sëy woon na sëy bu wér ba ak ndawam dañ te it kàllafe na boole ci doo ko sañ a forseeti faaw rek nga waxtaan ak moom ba mu nangu te wax ci làmmiñam nga door koo may jëkkër sa doom bu jigéen bi nga maye woon mu sëyi ba mu demee nag jëkkëram jotewut ak moom dara fase ko te it amu fa lu mat at bu del si mën nga koo forcé waat may ko jeneen njëkkër te du sañ a bañ waaye nag bu fekkee yàgg na foofu lu toll ni at dellusi gëm dellusi indaaleeg ndawam ndax jëkkëram jotewut ak moom dara du tax nga sañ koo forcé ndax yàggam yàgg foofu lu toll ni at dañ koy atte atte jeeg nga xam ne faaw nga diisoo moom njëkk wala nga koo may jëkkër boo weesoo bàyyi ab sang jamono yi jaam amee boo amee jaam bu jigéen moo xam gone la moo xam mag la moo xam xiit la maanaam ku dese ak ndaw moo xam jeeg la sañ nga koo forcé moom te du sañ a bañ ndax jaam moom dañ ko moom rek mu des nag koo xam ne la koo dénk baayam moo la wax ne la sama doom bu jigéen bi yow laa ko féetale wutal ko jëkkër bu ca bàyyi ba boolee ràññal la ne la may ko diw kon da nga ko sañ a forcé may ko diw moomee baayam wax te du sañ a bañ bu la baayam ne yaag man noo ci yam képp sama doom jigéen daal dama laa def ne sa bopp ñoom ñëpp ñu ngi say loxo yaa leen di maye ba tey kon da nga sañ a forcé képp ku bàyyi sañoon a forcé rek da nga ko sañ a forcé yow itam wutal ko jëkkër te du sañ a bañ waaye nag ñett ñi nga wax ne sañ nañoo forcé jekki-jekki maye jigéen ja te jigéen ja du sañ a bañ kat bala ñu koo sañ day fekk maye ga lenn ngaañ jenn lor bañ caa am bu fekkoon ne jëkkër ja ñi may dafa amee ak laago wala lu mel ne ngaana wala siti wala sax ak ndof góor ga ñuy may soxna bu amee kenn ci yooyu rek ki koy may soxna doo sañ a forcé te jigéen ji ne ko kooku laa lay may te doo sañ a bañ ku ñu ne sañ ngaa forcé rek day fekk ka ngay may mucc ci xeeti sikk yooyu nga xam ne dañu sikk yu aaya aay yu bon a bon su fekkee ne baay moo war a maye doomam waaye nag baay ba dafa dem te fa mu dem soriwut bu dee jamono yi mu taal séer bi nag booba dañ ko daan takk ci doxub nangami fan mu ne nag bu fekkee ne booba fa mu dem doxub fukki fan dong la te yoonu yoonu jàmm rek la baay bi kenn du ko sañ a wóotu doxe ko gannaaw maye doomam faaw ñu xaar ko ba mu ñëw ndax ndegam fa mu dem soriwut te yoonu jàmm dong la moo ku teew lañ yemale kenn du sañ a jekki-jekki maye doomam ci gannaawam faaw ñu xaar ko ba mu ñëw mu des nag bu fekkee tukki ba mu tukki dafa sori mbaa bu soriwut it dafa diggu doomu diggante jegeeg sori yooyu yaar nee nañ ñoo bokk àttee dañuy bàyyi àttekat julli ba ne ko ndegam fi bàyyam dem sori na mbaa boog soriwut waaye digg doomu na ci sori yow àttekat bi yaay maye ndax bu fi bàyyi nekkut yow àttekat bi yaa koy wóoto dafa tudd nag distance boo xam ne soriwut daa digg doomu ba noppi misaale ko diggante Afrique ak Misra fekk ifriqiyata ji wax mi Afrique googu Éthiopie la ci jublu digganteem ak Misra da ko misaale distance boo xam ne dafa diggu doomu fekk na diggante boobu ak sori lañ koy jàppee diggante Éthiopie ak Misra ak sori dëgg-dëgg la ci yooyu jamono bu dee suñ jamono ji na nga xam ne demukaay yi daa yomb ni nit ñi mën a jokkoonte it jàppandi lool lool kon moom daanaka fenn soreetut waaye bu dee ci yooyu jamono moom diggante Éthiopie ak Misra ak sori lañ koy jàppee waaye dafa bëgg a yemale tukki ba sori ak mu digg doomu ne àtte bi benn la na àttekat ba rek maye wecc baayam ndax bu fi bàyyi nekkut ci yooyu jamono àttekat mooy taxaw taxawaayam bu ñu nee nag àttekat yoon bi moo wecc baay ba taxul nag mu sañ a forcé bu fekkee kañ yi maye xiig la xam ne bàyyam moom bu fi nekkoon sañ koo forcé àttekat bi moom du sañ a forcé faaw day wax ak jigéen ja ba mu nangu te wartee koy bëgg si it di ab nawle baay bi nga xam ne moo war a maye doomam bu fekkee dafa jekki-jekki rek xamuñu fu mu nekk mbaa boog dafa am noonu lislaam yoo xam ne ñoo ko jàpp te nga xam ne moom daal yaakaaroon ne dana dellu si mbaa mën nu ko takk ci yenn jamono li mel noonu dañuy seet ki sës ci moom mu maye waxoon ne nag kilifa yi ñu tegaloo su fekkee ne bàyyi jàll na ka fa war a sës mooy mbokk mu góor ma nga xam ne moo bokk ak moom ndey ak bàyyi fii mu toll moom da koo tàmbalee rek waxa yubatun ba'idatun ak dem gu sori waaye lim ci jublu rek mooy yaakaaruñ ca ak dellu seem mbaa xamuñu kañ lay doon ndax lim ko misaale benn mu jekki-jekki rek réer xamuñu fu mu nekk wala ñu am leen teeg ñërul ay julit ñu jàpp ko téye ko lu mel noonu daal la muy doon doon bàyyi jigéen ji ñu war a maye dañuy jàpp ne moo ko fi nekku teyam mel ne moo ko faatooyam daal di seet ka sës ci moom rek ci kilifa yi koo ko maye kilifa goo xam ne amul sañ-sañu forcé waaye nag moo gën a jege moo waroon a maye buñ ko fa weesoo dem ci ka gën a sori koo ko maye it du ca wàññi dara mel ne kii moom jigéen ji ñu maye ñoo bokk ndey ak baay xam nga ne kon moo gën a jege baay bu ndaw ñu dem nag ci baay bu ndaw mu maye loola dara nekku ca rawante ne sax bu dee suñ aadee wolof moom dañoo fonk kilifteef dañuy féetale baay bu ndaw ba cërub baay bu ko defee mooy maye li ñuy bañ nag mooy kilifa ga amoon na sañ-sañu forcé ni ki bàyyi mi nga ne woon sañ naa forcé doom bu jigéenam bi nga xamee ne ak ndawam dajagut bàyyi moom ci yooyu jamono bu keneen mayee te joxewu ci ndigal du baax ndax ndegam sañoon naa forcé rek moom te jigéen ñi du sañ a bañ buñ ko fayoo soo dem ci keneen mu mayee rek ku bokkut ak bàyyi du baax waaye boo xasee weesu ñi sañ a forcé ba mu des kilifa yi nga xam ne ñoom sañu ñoo forcé ñoom mën naa am kilifa bu gën a jege ca nañ tegale woon ñu weesu ko fa dem ci ku gën a sori ca na nga tegale woon te du tee maye ga baax na dara si ku ca waaye nga takk foofu ne ñett ñi nga waxoon ne ku ci ne sañ naa forcé jigéen ji maye ko te sañ te bañ buñ ko fa weesoo dem ci keneen mu maye ko ci yoonu Maalik moom maye ga du baax doonte jëkkër ji jot naag soxna sa bañ am ay doomi doomit tute rek yoon dindi sëy ba jigéen joo xam ne amul daraja ci tax ñu xamem koo takk du judd bu baax du alal kooku mooy ak daniyatu su amee kilifa goo xam ne ci yoon ñi nga waxoon moo ko sañ a maye mu wees ko fa nag dem ci ab jàmbur bu góor boo xam ne lislaam rek leen boole mu ne ko nag nga maye ma kooko daal di koy maye wax ji gën a wóor mooy jàmbur boobee wartoon a songu def la mu def maye jigéen joojee te jigéen joojee amee kilifa waaye nag tutee rek dañ ko ciy bàyyi duñu ko dindi dagam jigéen ji moom amul daraja du ab taar du alal du judd bu baax buñ koy xamee ne daal bu demee ci góor goo xam islam moo leen boole rek mu doyloo ko nekk maye ma kooko maye ko dañ ko ciy bàyyi noonu rek waaye nag waruñu ko woon a def waruñu woon a songu def ko jigéen joo xam ne moom am na dañ koy taamoo muy judd bu baax muy taar muy alal kooka kat ndegam am na kilifa gu ko war a maye ci kilifa yooyu nga tegale woon kenn ci ñooñu moo koy maye mu door a baax waaye nag bu demee ci koo xam ne ab jàmbur la ci moom lislaam rek moo leen boole mu daal di koy fas maye ko du baax moom lay wax sax ci woowee bu amee ñu ñuy def ndegam moom jigéen ji amee na alal mbaa judd bu baax mbaa taar ba tax danaan ñu ko bëgg leen faaw kooku boo weesoo kilifaam dem ci geneen góor gu jàmbur ci moom mu maye ko rek moom yoon da koy dindi te bu ko yoon di dindi wax ne dindi gi am passé la koy jàppe moo xam ne nanguwul fay li lu may nag bu ko si yàgg baam ñetteet ba mopp ko ba jigéen ji farfaam ñaari doom ba lu ko ëpp rek kon dañ ko tasati dañ koy bàyyi noona